أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكامل ذاتا وصفة واسما وفعلا من تجلى في سائر كمال الكمال والصلاة والسلام على أفضل الأنام منبع أنوار فلك الجمال وعين سر حضرة الجلال مولانا محمد المفدال وعلى آله وصحبه ذوي النوال وتابعين لهم بإحسان إلى يوم المعال وبعد ñu ngi sant borom bi subhaanahu wa taala di masawu coono mbokk julli suba ba léegi yéen ngi dagaan yërmande yàlla yal na yàlla may leen yërmandeem yal ngeen ci fay yi bu yàlla tas yaakaar lu ngeen sumb yàlla na sotti lu ngeen jéem yàlla na antu lépp lu ngeen dogg yàlla na ci yàlla ànd yàlla na fi yàlla fay yàlla ki jàng xalma bi yàlla na ko fi yàlla yàggal may ko wér may ko dal ak tal gannaaw loolu waxtaan euh, bu ñu gàttal fàttali wante ndax jullit kenn du ko waar jullit waaram moo ko dugal ci lislaam kon jullit dañ koy fàttali wa zakir fa inna zikra tanfaul muminin fa zakir inna faati zikra sayadhakkaru man yaxsha wa yatajannabu al ashqa wa yatajannabuha al ashqa kon dañuy fàttale wante du gën leen ko xam walla raw leen ci wala doon ko waaye dafa yell rek ay jullit bu ñu daje ñu fàttale wante xiir xiirtalante ci def lu baax bàyyi bon topp ndigali bàyyi tere mbokk jullit yi yowmal du man du yéen ki nga yaakaar ku mu yaakaar ka yaakaar ñépp danañ dikk yowmal qiyaamati kenn du sol mbubb kenn du sol tubéy kenn du wodd kenn du def kamisol du musóor du dàll du kilote du silip du caaya du zimbang dungu ni nga juddoo woon noonu nga delloo yowmal qiyaamati waaye noonu ngay ñëwee pencab yàlla allahu akbar doo sol tubéy du góor sol tubéy du folotan du silip du kilot du mayo de bain du caaya du zimbang du ngembal pooc du dàll du tengaade du mbaxana du njolaay kenn ku nekk ni la yàlla bindee noonu ngay dikkee jigéeni noonu du soutien soutien gorge du camisole du musóor du pendal du sa du dàll ni nga juddoo woñ topp la noonu ngay delloo yowmal xiyaamati boo ko Seydina Muhammad waxee Aïcha daal di tëb tax bëtam ne fu ma jëm ak sama jom bi fan laa jëm ak sama jom bi yonte yàlla Muhammad na ko bu ëllëgee na ku nekk danga tal loo xam ne wóolis na ngay xool sa morom bés boobu yàlla dana laajte laajte yi ñun ñëpp ñu déglu laajte yi kenn du jéggi siraat dugg aljana bu dul yàlla laaju booba safara mu ngi bax baxi rek wa ji a yowma isin bi jahannama yowma isin yatazakkaru insaanu wa anna lahu zikra yàlla damay dellu àddina jëfaat déedéet kalla du am kalimatun zahir wallahi dem nga dootoo dikk sa dàll bu génne te keneen moo ko sol sa montre mi ngi daw xamul na dee nga sax wàcce la lal bi génne la néeg bi yóbbu la ci wanag bi wolbati la futti say malaan laxas la génne la kër gi te yaa ko tabaxoon génne la dëkk bi te da nga bokkoon ci citoyen yi da nga bokkoon ci notable yi yóbbu la fi ci àll ba gas ba mu xóot wàqi dugal la ca nga ne menteng ñu sotti la suuf fëgg seen loxo dellu ci kër wattaqu yowman turjawna fi ila allah du ñàkk mukk ci man du màkk ci ñàkk ci yéen gaaw leen balaa muy guddi wala gaaw leen balaa muy naaj nga dem dootoo del seeti li nga sonnoon bàyyi ko fi keneen doon na ko di ci bànneexu te sonn ci woon yàlla dana laaj dana laaj yonant dafay njëkk a woo yonanti woo boroom xam-xam yi oustaz am ngeen problème de boroom xam-xam yi ak yonant yàlla dafay njëkk ne antum kuntum ru'aatal xalqi fa maa sanaatum fi raayaakum yéen laa dénkoon doomi aadama yéen a doon sàmm mbindee fi fu ngeen yóbbu woon seen sàmm yi yow sëriñ si yàlla nga wone woon wala sa bopp nga wone woon yonant bi ci yàlla nga woote woon wala ci sa poos nga woote woon kon xam nga boroom xam-xam yi am nañ problème te ñun boroom xam astaghfirullah dama génn ci taalibe yi borom xam-xam yi ñeent moo leen kii tey femme voiture villa argent sëriñ tey lii rek la bëgg femme voiture villa argent jongamu bu muxtaare kër goo xam ne R plus 2 la étage force bu fees tëpp oto goo xam ne bu sekkusee sa bopp day bëgg a dal ci kaw lii rek moo suuxal sëriñ si tey sëriñ si talatuñu taalibe yi sikaab boo dem def nañ fa kër ñi seen maam yi doon toog ci minbar di xutba tey ñooy toog ci mitin yi di tàccu président wala ministre bi te président bi bu deeyee dañ la koy ànd ca jàkka ja duñ ko yóbbu ci état major ba de ci jàkka ja lañu koy yóbbu yow sëñ bi yaa koy jullee président bi bu deeyee diplôme bi mu yore woon licence maîtrise agrégation DEA doctorat daf koy bàyyi ci saal ba wala ci bureau ba yow sa alquran bi da ngay wàcc ak moom bàmmeel dem ak moom yombal xiyaamati mu ràmm la nga jéggi siraat nga bàyyi sa alquran topp ñii foo jëm dama am gàmm wala siyaare préfet laay seeti suuf préfet laay seeti te ngaa jël sa kurus nga seet yàlla ci mihrab bi président moo ma andil diw bii fukki saako lañ ma andil nga mer dana xam ne maag moom la boo munoon dara doo ko tëkku da ngeen a yaara bi ceeb bi ñëw fekk du moom munoo dara moo tax nga koy tëkku li ngay wuti ci ministre bi ci député bi ci ambassadeur ci président bi teel sa kurus nga dóor per yi yaa allahu yaa latifu yaa xay yaa qayum yow yàlla may ma mu may la fekk yaa ngi ànd sa dignité moo gën nga dem toog ci buntu ministère ba wala président mu leen di xeeb di leen doydil président moo ma yóbbu umra moo ma yóbbu aj ba dafa ruslu dafa gàccew xaadimu rasuul yàlla na yàlla taas ci barkeem ba way juróom wàccee liggéey am ku ñëw ne ko dama bëgg nga dem ci Lat Joor mbokkam la demoonte ndax Lat Joor seetu Maharam Mbàkke la moom ak xaadima jaxate ka la ak moom alaaji Maalik lépp njobootu maam Maharam Mbàkke lañ juram barke na lool mu ne ko dama bëgg ñu dem ci Lat Joor nga jaale ko ma bëgg it mu jox la place nga nekk ci wetam di ko tontal ay bataaxalam di ko bindal ay téeram mu ne ko bu dee jaale la danaa ko def ngir sama wóllëre baay la waaye nag dem toog foofu di ko dagu man bëgguma mel ni weñ bi tong ci kaw dem àll yal na yàlla fay xaadimu rasul ku doon dem ci moom ñu ne foo jëm ku fa jóge ñu ne foo jóge tey teraangay teraanga yëpp mu ngi tuubaa yal na yàlla xeeb doole waxuma lii pour doon révolutionnaire xaqullaahi taala laa leen di wax yàlla dina laaj sëriñ si laaj yonant yi nit ñi seeni càmm teef la woon ala lan ngeen def ci nit ñi tey da gis ku dajo sama maam nee na sama baay nee na waxoo yàlla waxoo seydina muhammad nga tànt woo nit ñi ñëw ña yendoo tànt ba bët set nga jox leen ay desetu cere ministre bi ñëw wala sous préfet bi nga jël ay res yu ñu saaf jox leen boo dajeg Seydina Mohamed da nga gàccew da nga gàccew ñu yendoo takk baas di daanu ñuy foxoj benn jël ñooñu nga jox leen ay desetu cere kii ñëw ne président moom a yónni nee na yaa téye asamaan si bu loolu yow nawet bi du baax mi ngi lay nax nga yëkkati li gën a neex ci lekk te fi jox ko bàyyi kële kon message bi taxoon nga jóg defoo ko yal na yàlla dimbale ñu yàlla ñaareel gi yàlla dina dajale buur yi ak borom alal yi président yi chef d'entreprise yi ministre yi secrétaire d'état yi ambassadeurs yi gouverneurs yi borom alal yi milliardaires yi millionnaires yi dana ne moom yàlla antum yéen ñi xasaana kunus yi yéen a yore woon sama magasin yi yéen a yore woon caabi sama magasin yi hal waaseetumul fuqara ndax dimbale ngeen baadoolo yi wa rabbaytumul aytaam ndax yar ngeen jirim yi wa axrajtu mina xaqi ndax génne ngeen sama xaq allazi katabtuhu aleykum ndax joxe ngeen azaka dana na borom alal yi ndax joxe woon nga azaka borom alal yëpp bu ñu joxe woon azaka wallaay nag la ñàkk des na ci réew mi buur yi bu ñu dimbale woon jaamu yàlla yi ci lim amatul lépp jeex na waaye da ngay nekk ministre balaa benn at ngam ay milliards foo ko jëlee ah ñu def la ngay ministre d'état bu ñu seeta sa compte ñu fekk ci ay million te nguur gi du doonay bàyyu kenn foo ko jëlee tey Zakaria yonent yàlla Zakaria dafa doon laaj Mariama ana laki haza foo jëlee lii kon nit ki li mu yore fan la ko jëlee kenn du ñëw yomal xiyam bu lu yàlla laaj la alal gi mu la jox boo waxee li ñu ne eh, kon président du la dimbale ana Abdou Diouf ana Senghor ana héros yu mag yi fi nekkoon xeexkat yu mag yi ñoom Kwame Nkrumah ci Ghana Sékou Touré bu doon wax rajo bi du lox ana Sékou Touré Jomo Kenyatta xana ñoom Jomo Kenyatta ñoom Mahatma Gandhi Mao ñoom Hitler général de Gaulle George Washington ay Vladimir Lénine ana borom xam-xam yooyu ana borom alal yooyu ñépp ñu ngi bàmmeel tey ñii fi nekk yàgguñu léegi ñu dem nga jaay sa diina topp leen pour benn billet Makka benn billet Umra benn 4-4 benn pàkk ñu la jox yowmal qiyaamati ngay dem bàyyi fi li yàlla xisaab la boo dee ñi ngi fi bàyyi ñu ngi naan lan la bàyyi ngir ñu donn la fa jëm ñu ngi laajte lan la jiital ngir ñu donn ko des leen ak yàlla li ngay wuti ci pale bi li ngay wuti building li ngay wuti primature li ngay dem di ko wuti ci gouverneur demal jumaa Tuuba nga wut ko ci mihrab ba demal Medina Baay demal Tiwaawoon demal Yoof duggaat ci mihrab bi fi nga ne yaa fekk yaa ngi set wecc wallahi bu amul ak rax na taw nag buy wàcc nga taataan mu niin mu niin diw du taw ba sa bool bi la taw amul luy niin boo ñaanee yàlla ci benn ci jàkka yi amoo li nga bëggoon demal seetal sa bopp yaa melul na nga war a mel yàlla na yàlla dimbalañu Euh, ku baax kii di Cheikh Abdul Qadir Jeylaani qaddasallahu sirahu mu ne fattashtul a amaala kullaha fa ma wajadtu fiha afdal min itaami taam awaddu law kaanat dunia bi yadi fa utimuha jia moom Cheikh Abdul Qadir Jeylaani nee na seet naa liggéeyu àddina gisuma ci bu gën nga jël ñam jox ko ay baadoolo ne wallahi man Cheikh Abdou Qadir Jilaan bu ma amoon bu ma moomoon àddina bi lépp danaa ko def lekk jox ko waaye xiifi ñu lekk boo jullee dangaa reg boo talee jàng dangaa reg boo talee faj nit dangaa regg boo talee dem examen boo talee def discours dangaa reg boo xiifee sa ngor dem te ku sa ngor dem sa diina dem agresseurs yi dañoo amoon ci lu ñu jàpp bu ñu amoon ci lu ñu jàpp kenn bugg te nekk ku bon boo dajalee fukki xale boo ne kii loo bugg doon mu ne médecin kii loo bugg doon mu ne gendarme loo bugg doon ministre kenn du ne bandi laa bugg a doon day màgg rek doon ko waaye ko doon kon kenn bugg te bon da ngay ñàkk pexe dugg ci lu baaxul yàlla yàlla jubbanti leen ay téeméer ñu ngi ci kaso bi tey wallahi seen mbon dugalu leen fa ay junni nit ñu ngi ci kaso yi tey seen mbon dugalu leen fa waaye nag góor bu góorul ci dara ñàkk ngoram te ku ñàkk ngor ñàkk diina te ku ñàkk diina dootoo jombati def dara yaa ngi lekk ba regg romb ko koo ñoor naan yaara bi nga sànni ko juróomi dërëm juróomi dërëm mun na reggal nit kaw gi dafa am xiif kenn ku ne nga jox ko benn saaku ceeb benn saaku ceeb mun na jël ni juróom-ñeenti weer joxe nañu dund ana ban ban dund la seetal yalwaankat ni ñu bare SOS téeméeri SOS ak fanweer ak yu teg am na ci àddina bi ki ko def catholique la du jullit bu ma fàttewul waa Autriche la ah Autriche ki def SOS Autriche la waa Autriche la bu ma fàttewul téeméeri SOS ak fanweer ak teg Kaolack am na Ziguinchor am na Sénégal am na ci ñeent fu mu def SOS mu xaaj ko ñett bii xale yu amul ku leen yar fa la ñuy nekk fii école lay doon fii dispensaire lay doon ana julli di lu ñu def ana julli di lu ñu def borom milliards yi ana lan la def di dem ci réew arab yi di leen fenal ñu jox la ay alal nga ñëw tabax ay immeuble ne amir bi moom ma woon te dangaa yalwaani woon ñu jox la pour nga def ci jumaa ji nga def sa poos dem takk dem euh, di foto ay nit ne maa leen dundal ñi ay jirim lañu dem di ko woni borom alal ñu lay jox ay million ngay ñëw di ko pasar pasaree moo tax nga doon gis may tere appareil yi ci gàmmo ak yooyu balaa nit ñi di bàkkaat foog ne lii dañ koy yóbbu ci réew arab ñu ñuy dox dara waaye njaboot gi ñoo ne yàgg yàgg da ngay génn àddina bàyyi ñu jël foto yi bu ëllëgee sët yi daal di ko jëriñoo mën a jël leen bés bu ngeen ma gisatul ngeen gis photo yi lii rekk la yàlla dimbale ñu yaa yal na yàlla dimbale falaqtahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw itaamun fi yawmin zi masraba yatiman za maqraba aw miskinan za matraba yàlla soriwul mu ngi ci biir doomu aadama lafañ bii darngu jëndal ko fuus-fuus gumbo gi ay sàkketam daanu wutal ko ay sàkket xale bi ñu dàq école amul scolarisation wala nu ngeen koy waxe dimbale ko nga inscrit ko di ko fayal nga yegg ci yàlla léegi fakku raqaba defal ci miskin yi defal ci jirim yi yàlla na yàlla dimbale ñu yaa rabbi raayta lazi yukazibu diin fa wala yahudu ala miskin képp ku dul dimbale baadool bu yeboon nga julli ni julli yàlla soxla sa julli yàlla bu ne ku may yàlla du lekk du naan miskin yi la ci jublu kon na ngeen góorgóorlu yal na yàlla baaxee ñu yal na yàlla jàmmal ñu yàlla bu euh, ngi leen di dénk di dénk sama bopp euh, bu ñu weddi nitu yàlla yi góor yàlla yi nañ leen moytu di leen weddi bu ñu leen diingat bu ñu leen xas bu ñu leen ŋàññ ñu set lañ ñu sel lañ kii tiijaan la kii xaadir la kii laayeen la jabaari marsi hashimi turabi mirghani badawi sanusi ba junni tariqa yi nekk ci àddina am ñu ko tënk ci ñetti téeméer ak juróom-benn fukk yépp ci yàlla la jëm lu nekk Touba moo nekk Tiwaawoon lu nekk Tiwaawoon moo nekk Medina Gunaas loolu moo nekk Ceneba moo nekk Ñaseen <coughs> benn bi rek la du ñaar yàlla yonent bi alquran kaaba gi kenn du ko am yàlla xas na ko def boo ci bokkee sellal nga benn nga bennoo feeñ boo defee ne ne noonu sang bi maa ngi lay sant bu baax a bi jóge Tuuba Mbàkke yàlla na yàlla fay la ku oyof toyu la di ku sës rëkk di doomu Muhammad Fadlullahi Mbàkke di doomi xaadimu rasul lii doy na tagg seetal fi mu toog te lii moom ma ko gën a xam nga seet surtout cheikh al islam alhaji ibrahima ñas di doomi mouhamad nazir ñas seet seetu maam xalifa ñas ni mu toogee sama mbokk tiwaawoon nga seet ñoom chérif yi fi ñu toog mbokk mi dina gunaas yi ñu ngi leen di sàkkoo ñaan na ngeen ñaanal julli ñu am jàmm yërmaande tey génn na ci buur yi yërmaande génn na ci borom alal yi yal na yàlla dimbaleen yaa rabbi bu leen ŋàññi benn nitu yàlla nitu yàlla ŋàññi ko baaxul de nitu yàlla buy wirdi li muy won dafay doon tooke boo ko tuddee lu bon nga yàqule am na ku ñu tuddee yuusuf bun ayub am na waa ju ñu doon tuddee ibnu saqa daf ko doon weddi di ko diingat dafa fekk muy waare rek mu di ko contre mu ne ko toogal dégg na sa kàddu li ngay laajte du nii lañ koy laajte du fii lañ koy laajte waaye yow dey maa ngi eh, musul ci sa mbir ndax ni ngay waxee xet biy jóge ci di yegg si ci man xeetu kuy texe di la nara dee ci fekk du lislaam subhanallah waa ji wallahi loolu nekk na boroom xam-xam la dafa mokkaloon alquran taret waaye mu tukki dem réewu Rome du Rome bii de Rome bu njëkk ba empire bu njëkk ba seen capital di kostanta mu dem foofu mu bàyyi lislaam dugg ci diine nasaraan am ku tukki fekk mu ngi feebar tëdd ci kaw benn gongo mu ne kii du mu ne ko man la mu ne ko la jot mu ne ko xanaa tubbi naa nekkatuma jullit nasaraan la mu ne sa alquran ba noo ko def mu ne fàtte naa lépp mu ne fàttale koo ci dara mu ne benn aaya rek mu ne ko mooy ban mu ne ko rubbama yawaddu lazina kafaru law kaanu muslimin cey bés ngi ñëw ñi génn ci lislaam danañu ne ngéej ma desoon ci diina waar na boppam jéng na boppam ngalaab na boppam jatank na boppam kon lu ko andi loolu mooy contre nitu yàlla yàlla nañu yàlla musal ci weddi nitu yàlla alxaji malik si radiallahu anhu di safaray lolli safaray lolli nag képp am dara rek moom nga soxla walla jamono yu du dafay sedd ñëpp dañuy liw ku liw lan la bëgg safara kon alxaji Malick Sy safara la ci lolli képp ku am deret moom nga soxla ku yàlla may ku taalif lu mel ni xilaasu zahab nuuniya zajrul qulub moom alxaji Malick nee na man lam yuxit bi jumlati sharia inkaaruhu li mahlakin zaria warul ndomb xam-xamu yàlla yi boo weddi rek yaa ngi ñoddi sa bopp ci alkande ana fan ngay peegee xam-xamu yàlla am nga loo xam am na lu la nëbb kon li ma xam rek mooy xam ku ko xamul nekkul ci dara ah, loolu doyadi la ndof la man lam yuxit bi jumlati sharia inkaaruhu li mahlakin zaria alhaji mali moo wax li yàlla na yàlla taas ci barkeem eh, maa ngi ñaan yàlla nit ñi def na ngeen def noonu seetal ñëw nañu fii waaye man it damay dem foofu keroog ba cheikh mouhamadul mourtada mbàkke yàlla nañu yàlla taas ci barkeem ba muy ubbi si jumaa bi ci pénc bi fii dama woo bajaan jël sama doom bi fekk mu ngi fari xale lool ak cheikh ibrahim kii jàng égypte ma ne bajaan na nga leen yóbbu bu ñu guuxante pour jox ko loxo de nitu yàlla ngeen bokk nokki benn ngelaw sax doy na boo demee comme kii dafa gàtt mënu ko gis na ko tingoom ba mu gis ko rek nga wàcce ko ngeen ñibbisi boo man dama war a jiite jumaa lii moo ma teree dem foofu la ma yebal sama njaboot yëpp ñu dem ngir barkeelu julli ci gannaaw sëriñ Murtada radiyallaahu anhu danaa fi jóge dem Medina siyaare Baay Ñas julli fa tisbaar dem penc sëñ Basiru daal di fa julli tàkkusaan wala timis daal di ñib siwaat ñii loolu la ñu danaa dem leew na ñaseen dem ziyaare ji ñu tedd ñu fa nekk am na benn dëkk bu ñu tuddee ci ginnaaw daabaali tabakoro wala nee nañ Cheikh Omar Fouti dafa musa fanaan ci ron benn garab dama dem ba foofu 1978 fanaan foofu ci biti ci ron garab ba ba bët seen ma ñaan yàlla dellusi ndax wàññi na ma wàññi ma ma yokk kon nitu yàlla yi nañuy demante waaye bu ngeen dematee rek dee moo am nga dem jaale ji lii catastrophe la na nitu yàlla yi di demante kon ci la taalibe yi di mën a demante Cheikh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirahu dafa déggoon xutbu zamaan booba nekkagul foofa la boobu mi ngi fare ndaw ñu dégg benn xutbu zamaan ne mi ngi màkka ñu ne dañ koy ziyaara ji ñaari moroomam ne ah kooku dafay dara nga koy ziyaara ji Cheikh Abdul Qadir Jeylaani qaddasallahu sirra dem ziyaara ko mu teg loxoom ci boppam daal di ko ñaanal na yàlla na nga ma raw yàlla def na loolu de kale rawsu xutbu la woon moom bu dem ba nekk fardul jaami jaamiwul fard du ñu benn mun ngaa nekk fardul jaame fekk doo jaamiwul fard mun ngaa nekk jaamiwul fard fekk doo fardul jaame waaye boole ñaar yëpp nekk ministre de forces armées en même temps nekk chef d'état-major général danay am gendarme nga nekk ministre des forces armées en même temps nga nekk chef d'état-major général duñ ko nanga mukk jore ndigalu safara yorewaat safara kon nga taal réew mi yore safara yorewaat ndigalu safara duñ ko defal kenn loolu mooy fardul jaami jaamil fard benn yëkk ci biir gétt loolu neex defal ci la demee ba yëg ci maqaama yi muy naan anal xasaniyu wal miqda maqaami wa aqdaami ala unuqi rijaali yàlla taas ci barkeem muhammad seydina muhammad xaadimu rasul dem na be njarnde fekk fa alhaji malik foo fekk alhaji malik njarnde la nekk mu def fa ay fan mu abal ko téere Cheikh fuuti bu ñu tuddee rimaax bi xaadimu rasul di ñib si mu ne ko ngaan gi day neex na ñu bëggalante lool ngir ñoom ñëpp benn maam bi lañ mu ne ko téere bi boo ci doylawul doo ko yóbbu xaadimu rasul daal di muñ ci jëmmam ju sell ji mu ne téere bi tey bu nekkatul ci jamono dinaa ko génnee lépp mu ngi ci dënn bi te Cheikh Omar la moom nee téere bi mi ngi ci dënn waaye sëñ Touba dafa tolloon ci maqaama al muhammadiya al ahmadiya mënoon na joxe wirdu tiijaan joxe wirdu qaadir joxe wirdu sanusi joxe maaxus biñ ko joxoon min indillaay bi waasitati rasul te wirdu yoo yëpp benn wirdu bi dong la mooy duratul baydaal kenn sañu koo génn wirdu yëpp seen cosaan duratul bayda la moom la yoon yàlla joxoon yonante bi mu jox ko Seydina Aliou kër bésu Xaybar moo tasaaroo doon ay calala calala calala kii tiijaan la kii murid la kii xaadir la kii laayan la waaye yépp ci benn wirdu bi la jóg yàlla amul ñaar benn rek la yor benn law nag doon ay banqaas yal na yàlla fay yàlla kon danañu xeeb kenn nga dem ziyaare ko nga jaar foo daal di baax la eh, mbokk yi fitna bii ñuy dund tey lan moo ko waral fitna bii ñuy dund tey lan moo ko waral juróomi dongul Seydina Muhammad dafa woo sahaaba yi mu ne juróom a ngi ñëw ku mu fi fekk boo amul sens yàqu nga ñu ne ko mooy lan mu ne ko lam tazharil fahishatu fi qawmin qattun xata yu'linu biha illa fasha fihimul awja allati lam takun fi aslafihim bu ñu demee ba njaalo nëbbatuñ ko yàlla du dina andi jàngoro boo xam ne musta nekk ci maam yi te duñu am pajam léegi dañuy am bay am carnet de santé di nekk ay caga ci ay mbedd boo demee di wut autorisation ngir tabax jàkk mu jafeñ lool boo buggee tabax bistoron ñu daal la signal boo ne ay jàng ngay def ñu ne dëkk ba ñaata tariqa moo fa nekk te boo ne làmb def ñu signal la gis nga caaxaan niñ ko favoriser ak dëgg niñ ko neenale jël ay millions di ko def ci football dérubé ay ponkal topp ko di dóor du ñu yegg final alal googu yëpp dem réew mi di gën a ndóol di wàcc rek ñaareel gi mooy lan nee na bu demee ba bu ñuy peese du baax bu ñuy natt du baax yàlla yi téye barke asamaan bu tawee tamit du barke bu njëkk benn nit mooy yore konk bismillah mu daal di am lu mu dundalee at léegi da ngay takk ay fas ne ale nga béy ay hectare balaa nawet di ñëw ngay leb barke suuf dem na boo demee ci luuma ñaari pot bii ñu dóor bu mu nuux bii ñu dóor bi mu nukki di jëndee bi di jaaye bi jàmm du am ci réew moomu ne bu ñu demee ba joxeetuñu asaka nag yàlla téye teraangay asamaan bu loon baaxi may du taw mukk taw bi baaxi may dong la man ba ma nekkee taalibi di béy dafa am lu ñu tuddee kàmboona ni jën la mel booy ko toolu ceeb bi da koy fekk mi ngi wow ba der bi dafay fulleeku mu wow kong juróom-ñeenti weer dana ko tëdd bu nawet dikkee ci lay génn di dawaat mag ñi di ko tuddee kàmboona xeetu jën la bu loon yërëm ñooñu mbott yi nekk ci biir pax yi gunóor yi nen bàyyi ci biir pax yi bu lool ñii du taw mukk kon taw yi du ñun ñoo tax mu wàcce ndax du ñu joxeete azaka yonent bi nee na bu ñu demee ba fiir kóllëre yàlla yi firi kóllëre yonent yàlla Muhammad yàlla andil ñun noon bu ñu ëpp doole bu ñu dul yërëm naka mu seetal yëngu-yëngu bi nekk suñu réew yi duñu dal guddi duñu dal bëccëg nee na bu ñu demee ba àtteetuñu téere yàlla gi yàlla féewale xolu sëriñ si boole leen ak buur bu leen dul yërëm ñu ngi ciy dund saako ceeb léegi ñaata la ñeent junni yu teg lii mus na am te guerre amul facture yi di yokk rek te du dakk mukk defal nañ seen avenir defal seen avenir doom seen doom yëpp ñu ngi bitim réew di jàng yéen seen doom yi nekk fi di gërëw rek ana yi taxoon ngeen fal leen benn tiset bu ñu la jox jëndal la benn sandis nga taxaw ci naajo bés beñat di tàccu rek doo falu mukk kii falu moo nekk ci oto bi di dem yow mi nekk ci naaju doo falu mu bés bu faloo bu la joxee loxo mu dem raxas ko ak omo ngir microbe bi te démb mi ngi doon nekk seen dëkk foofu la inna allaha laa yughayyiru bi qawmin hattaa yughayyiru maa bi anfusihim fii ak soppeekuñu mbir mi du soppeeku ma fi may ñëw di jeexale mooy ñu bari dañuy dee balaa ñuy dee seen làmmiñ damm duñu mën a joxe benn ndénkaane lan mooy tax nit ki bu nekkee ci sukkaraat làmmiñam damm dootu mun a waxati dara bu deeyee gannaawam jaxasoo ah bari na léegi lool nga gis ku dee du mën a joxe dara lu leeral gannaawam ki mu lebaloon ki ko lebaloon du ko mën a leeral li mu dencoon fi mu ko dencoon ku mu ko dénkoon du ko mën a leeral boroom dafay dee dafay ko tàmbali dee rek làmmiñ bi téye dootu mën a waxati lu ngeen koy gis ana lan moo koy def nga gis am ku bugg dee joxe ndénkaanam yépp mu dee dara du yëngu gannaam ndax leeral na lépp lu koy def mooy déglu nodd bu ñuy nodd nga déglu bañ a wax nga ne tekk ba nodd bi pare nga soog a ñaanal seydina muhammad allahuma rabba hazi daawa taama wasalaatul qaayima ba mu jeex booy dee malakul mawti day ne kii day bu ñu doon nodd dafa ñuy déglu kon ñu ne nañ ko déglu bu ñuy dind sa bakkan ci tànk yi lañuy tàmbali bu ñu xaccee sa bakkan ba sa óom sa tànk yëngatul boo laalee mu sedd nga xam ne maa ngi bëgg dee tànk yi yëgatul bu ñu ko ñoppatee it doo ko yëg nga joxe ndénkaane boo dénkaanewul ñu xàcc ba sa ndigg lii yëpp dee nañu ñu ne nañ ko bàyyi bu ñu doon nodd dafay déglu kon nañ ko déglu moo joxe ay ndénkaane boo dénkaanewul ñu xacc ba sa baat tànk joxee ndénkaane ñu téye sa bakkan boo joxee ndénkaane ñu xacc sa ruu nga dee ñu ne moom de dafa joxe ay ndénkaane pare daal di faatu mooy ki doon déglu nodd ki daawul déglu nodd bu ñu nodd muy wax ñuy tëgg ndënd mi ngi ci musique bi mi ngi coow mi ngi xaqataay bu ñuy dindi bakkanam ci bopp bi lañ koy tàmbali nga gis làmmiñ bi damm mu def semaine du mën a wax ñu ne moom day semaine a ngi nii waxul dem ci sëriñ bi ñu jàng ay yaasin ñu ne daawuñu ñu déglu kon ñu ne duñ ko déglu ñu njëkk a génnee ruuxu bi ci bopp bi làmmiñ bi domm bët baa ngi ne xujj gisatul nopp baa ngi ne xàng déggatul làmmiñ baa ngi nekk ko kole ci biir mënatul wax ñu génne ko ci tànkam mu dee fekk dénkaane nodd jafeñ naa déglu nodd boo koy déglu dafa am lu ñu tuddee aalamu taasir tomb bu nekk ci yaram dafay jeexital moo tax bu yàlla di wax cër yépp ay dégg gisoo muuma boo waxee muuma du dégg waaye bu asamaan dënnoo mu dégg yàlla la nopp bi déggul cër yee dégg bu ñuy nodd nga déglu sa peru yaram yépp dafay déglu bu yowmal xiyaamate sa butidi sa kërandoom yi yax yi caas yi yuq lépp déggoon nañu yàlla yàlla rek ci la ñuy nokk da ngay dee ci baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah yàlla nañ ko yàlla defal euh, mi ngi bëgg a guddi euh, dama koy tënk rek alam boobu alam bu xóot la euh, mënuma ko nettali fii waaye maa ngi ñaan yàlla ma nettali ko feneen nit yàlla yi danañ dem bay yëg-yëg goo xam ne kenn waxu leen ko alamu taasir la dañoo dem di déglu nodd du ñu wax ba mu jeexital ci ñoom boo tollee Paris boo waxee ñu dégg ko sans téléphone moom la tubaab yi di def ni ci appareil ci ordinateur yi nga dóor fii message mu feeñ États-Unis fan la jaar amul fiil xaala mu taasir sa naktu ma qaddamu wa asaarahum unzuru ila asri rahmatillah asaar hmm? yàlla na yàlla dimbale yàlla moo tax yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba muy sukuraat lu mu métti feebar na fukki fan ak ñeent mu soog a faatu alxaji si wax na ko Ibou Sakho woy na ko yàlla koy ko yàlla fay alxaji Ibou Sakho ku baax fu mu fanaanoon ñépp xam Seydina Muhammad ñetti senegal amaat leen yombul alxaji Ibou Sakho saam mbay alxaji Adi Niass bu aadi doon wax dangay ngay dégg baay di baay di wax ci biir dënnam sëriñ Samb doon wax sëriñ Touba ngay nàmp alaaji bu saaxu bu doon wax alaaji Maalik ngay gis yal yàlla fay leen ñu baaxangoo yal yàlla taas seen barke kon nañu fara nañu waajal bés boobale xam ne munkar ak nakir ñu ngi ñuy xaar kan mooy munkar nakir li jibril di am fit yépp malakul mawti yàlla tuñam rek la woon jibril jibril na ko doy na waaw jibril nag ni mu toll lu mu ne doy na lu tiit la de te danaa ko gis da ngeen ko gis te seen gannaaw lu ko gën a tiisu mi ngi ñëw mooy munkar ak nakiiri xawma kenn bu ma xam loolu mooy seen tur maa lànk maa bañ waaw ku tudd maa bañ maa lànk foo jëm kon eh, ma taxañ mbir mi ndax mi ngi bugg a guddi sëriñ bi jiitañu li fi nekk maa ngi sant daayira yépp mënuma leen lim ngir daayira yi paase nañu ay ñeent fukki lépp daayiray kër gi la yal na yàlla fay leen weeri koor bi ñu doon togg ndogu yi ñu doon togg reer ñu doon togg xadd yi sant naa leen ñi ci dugal seen loxo ñi ci dugal seen ñaq ñi ci wax ñi ci dem ñëpp fay naa leen xarit yi mbokk yi yal na yàlla fay leen gërëm naa leen te dootuma leen fakk mukk bëgg naa leen dootuma leen bañati mukk yal na yàlla fay yàlla bu leen ragal bu leen tiit ñu ngi leen di diaboliser tey na ngeen ànd ak yàlla waxuma ngeen dem di def ay attentat di def ay agression déedéet waaye gëm leen yàlla ngeen gëm Seydina Muhammad bu leen weddi benn góor yàlla maa ngi ñaanal julli di ña nekk ci Afghanistan ña nekk ca Iraq Soudan somali Palestine Kosovo ah fu jullit di yëngu ci àddina muy métit yàlla na ko yàlla dakkal maa ngi jaale askanu ñas maa ngi jaale askanu si di ko jaale réew mi yépp di ko jaale ay askanu ñas te mooy ku baax te mooy imam Hassan Cissé yàlla na ko seydina Muhammad teeru aljana yi gën a kawe na fa dëkk yaa rabbi Hassan ku baax Hassan ku yiw Hassan ku set Hassan ku sell Hassan daal turam rek la Hassan Hassanun ka ismihi Hassan baax na naka turam rek imam Hassan fi ma ko miinee am na ku baax ku fi nekk ñu ko tuddee Abdul Qadir Dieng mooy yore assurance bi ñu tuddee AMSA ci kaw la ku ma bëgg la aljuma yëpp fii la koy jullee setu imam daymaan la te daymaan ak sëñ Touba xam ngeen ko sëñ Touba famille boobale ñu ko bëggoon lañu ñu ko jàppale wal nañ ca gànnaar setam la dafa musa dafa ma musa woon ne ko sëñ bi ma ne ko waaw mu ne dama bëgg ànd ay tubaab yu tuub foofu ah ma ne ko tubaab bu tuub mu ne ma waaw ma ne ko suñu mag mi ngi Kaolack di imaam Hassan yóbbu ko foofu tool bi toolam la moom la yàlla jox ay taalibe tubaab te ku baax xamal ko mbaaxam du wàññi dara ci sa mbaax yóbbul ko tubaab boobu mu dolli ko ci tubaab yële mu yóbbul ko imaam Hassan imaam Hassan tuubloo leen ci aljuma googale téléphone bi sone ma jël euh, man la imaam Hassan waaw yàlla nañ ko fekkee aljuma ma na ko imaam Hassan lii ëpp na ah mu ne gis naa say ndaw li nga bëggoon def naa ko dugg nañ ci islaam ñu nga ne la di xéewlu mu ne yàlla yàlla fay la. est ah mu ne lii jafeñ na de ma ne ko du dara imaam yow la yàlla jox cër boobu nangul naa la cër bi ñaanal la nga gën a yokk gën ko bari la. mu ne yow bokkoo ci mbir mi de ma ne ko ah kay sëriñ laa ni sëriñ si rek kañaan bi nga bëgg a junj mu ngi ci sëriñ si yëpp waaye dama xam ne lii sa cër la euh, nga jël ko daf ma yokk waaye du ma wàññi. ah mu wax wax yu bari fi muy mujje mu ne dig naa la dinaa la siyaare si ma ne ko imaam Hassan yow amoo jot bàyyil ma lay ñaanal nga may ñaanal rek lii mooy lu dox suñu diggante ku baax la rakkam bi mujj a faatu di Seydina ñoo na fi gàmmo ñoo na fi lu dul gàmm bëgg ñu nekk na fi ba ay une heure ci guddi mu ne suba gàmmowaat la sëñ bi maa ngi lay tàggu di dem ñoom ñaar ñëpp aljana yi gën a kawe yal nañ ko dëkkee fañ ñu faree woon yal nañu yàlla fare foofale fañ ko faroon yal na ko yàlla fare foofu mbokk yi mbëtt du musa feesal paxu jasit dana ca dugg waaye du ko fees mukk pax bii jasit moo ko gas dëkkoon ca mbëtt ñëw denn menteng ci biir ñu baax ñooñu ah jéem lañ doon jéem mënu na waaye mel ni ñoom mënul yàlla du tële waaye dafa am yu ko soof yu ko soof imaam Hassan da ah, nga yàlla fay yàlla gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp xala bu ma kenn bañu kenn fu ngeen dégg ñu may xas nangu leen ko sama jikko la daf may dimbale ngir ma bàyyi lu bon loola la ki may tagg mbaaxam la yegguma foofu gis naa seen taxawaay yëngu-yëngu amoon na fi ñu ne dama feebar du feebar lu ma jënd la at yi fi mu yeggul dama yëngal loola la loolu nag yaram bi du ko dékku nga toll ci 100 kilos nga bëgg a yenn 200 kilos ah, mun na dem waaye sa loos dana toqi sa baay saltige la sa sa maam saltige la boo nekkul saltige it ngay teen asamaan si di xonqal sa bët rek léegi ñu ne ñu ne léegi mu wax du <laughs> ah, maa ngi roy mag ñi jur nañ ma waaye ma ñu gën ma dugg naa ci turu yàlla yoo xam ne yaram bi attanu ko waaye wallahi kontaan feebar bu ma feebar bii moo gën a métti waaye feebar bu ma gën a kontaan bii laa gën a kontaan ndax yàlla won na ma boppam fang demoon naa weeru koor bi bés bu nekk fukki junne ak juróom mooy sama dépasse ma dem ma dem ba dépasse suba laa dese ma daanu feebar ñépp ne ndogu yi ak reer yeek xadd dootu ko mënati subhanallah yàlla woon ma ne kii moomu sama ndaw dong la danaa jëla sama bopp ba ngeen xam ne mu nekk fi ak mu ñàkk fa nekk dana wéy soppey xarit yi am di jaamuy taalibey day sotteeku rek téeméeri junni téeméeri junni ak ñeent fukk ñaar fukki junni ba mujj gi damay dépense bés bu nekk ñaar fukki junni ba weer bi jeex li ci des lépp ma xottil ko jirim yi mbubb jox leen kon sama nekk sama ñàkk nekk yëpp yàlla dina ko yoon jaa ngeen jëf gis naa seen taxawaay te bu leen wàccagum yàlla ngeen ko bërile te barkeel la ko feebar bi dem na bay yëngu waaye yàlla won ma ñaari drapeau fa amma bi ni'mati rabbika fa haddis tahaddus bi ni'matillahi shukrun wa tarkuhu kufrun nettali xéewalu yàlla sant ko la te boo ko sante mu dolli la nëbbu xéewalu yàlla weddi yàlla la daf lay wàññi dama dem ba mu wol ma ñaari drapeau benn bi ñu ngi ci bind wala saw fa yuuti ko fa tarda benn bi wala saw fa yarda lii doy na bu ma dee woon it sant bu ma deewoon foofu it sant yàlla dara du rey yàlla rek mooy rey maa kaana li nafsin an tamuuta illaa bi iznillah kitaaban mu ajjala bakkan bu génne yàlla moo ko génne du ma sàmm du ma dem jàng ngeen yàlla gis ngeen yàlla xam ngeen yàlla jàng naa ci yàlla gis naa ci yàlla xam naa ci yàlla yoon ngaa ngi noonu la bu ma fi desee dinaa leen gunge bu ma fi desul moomu ma ko dama cee bokk rek wéyal leen diina gi du dara budul bii rek li fi maam ñi bàyyoon li ci mag ñi bàyyoon yal na yàlla dëgëral leen yal na yàlla dooleel leen yàlla bu leen yàq yàlla bu leen yàqale nuyu naa rajo yépp suñu kilifa bi di Ibrahima Ndour rajo bi fi njëkk a wàcc jël bi kii la dañul ba léegi di ko def sama conférence yu njëkk yi ngeen di dégg yëpp lillahi wali rasul la ko doon defoon muy RTS rajo dunia feelu ko tey bu ma saqatee sax ñu jël teg yal yàlla fay RTS rajo dunia al faydatu faydatu man maa ko moom moo tax ma mujjee leen tudd lu Medina moom man maa ko moom moo tax mujjee leen euh, Sine Saalum FM wala Saalum FM ah yi fi teew journalistes yi techniciens yi Euh, euh, gendarme yi euh, corps militaire yi am na ñu solul tenue ñu ngi ci biir mbooloo mi xam naa leen lool ñii dañ leen yónni ngir ñu seet li may wax ndax dafay concerner réew mi xam naa dañ ma ubbil dossier waaye faaloo ma ci dara ñoo waaye samay taalibe lañu ndax ba ñuy def examen di jàng dama leen ñaanal ba tey ñu nekk ci corps paramilitaire duñu solo ay mbubb yónni nañ leen fi waaye ñii mënuñ ma gaañ man bu du ñoom sax kenn du ma gaañ ndax concerné wu ma dara ci diina gi sama des fi yokkul diina gi sama dem wàññiwul diina gi sëriñ si ñu ngi ci kaw man taalibe dong la ànd ak yéen kon maa ngi nuyu police yi sol mbubb corps militaire bi service renseignement yi maa ngi leen di nuyu ñu solul teni ñii dañuy ñëw seet si ma dañ ma yónni de waaye mënuma ci dara sëñ bi man a defal sa liggéey defal sa kon sant naa leen ñii ba ñuy def concours man maa leen ñaanal ñii ba ñuy def examen maa leen ñaanal ñii dolli ma la ñuy bëgg waaye duñu mën a wàññi mu ñeneen tamit dañoo ñëw rek ne dañuy assurer sécurité yal na yàlla sàmm leen yaa rabbi euh, li ci des nag mooy maa ngi ñaan sëriñ bi Mbàkke lillahi wali rasuli baraka xaadimu rasul mu jiite ñu tàkku saan ñu dem ziyaare sëñ bi ngeen xéewlu bu kenn dem bu lu nga xéewlu am na mbooloo mu demoon ci xaadimu rasuul ziyaare ko kenn ku nekk jàmbat sa aajo moom moo jël ataaya jox leen am ku ne sëñ bi man de duma naan ataaya sëñ bi noppi jox ko ñi ci ñu toog diir ñële ñële ñëpp am xéewal am teraanga kële amul xéewal amul teraanga mu ñëw ci sëñ ko ah, sëñ bi man de ñëwoon naan ni ñële ñëwee waaye day tey ñoom day defaru nañu bay defare yokk nañ bay yëpp ko man nag fi ma nekkoon fa laa nekkoon mu ne ko mbir mi ci kaas ba la neewal ca kaas ba la neewal kon bu kenn dengulul nga xéewlu de mbir maa ngi ci bool yi de allahuma inni asaluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta alxanaan almannaanu badiu samaat wala di azal jaaka ya xay ya qayum allahuma yassir wala tuassir allahuma saxil wala tusaqil allahuma layn wala tushaddid waftax lana jamia baab alxayraat wa bibaan alarzaq fatxan qariban fatxan mubinan fatxan sharian fatxan shamilan fathan tajalu fi lizzata walsharafa walmajda walbahjata walbahboha walbaha wa tuulal umri wa sihata albadan wa tuulal umri wa sihata albadan wa tuulal umri wa sihata albadan walfarax walsurur wa neel almuraadi walmuraami walmaqsudi walmaqasid wa jami wa qadaa jami alhawaij min addaruri wa kamaliyal allahuma salli wa sallim ala taala bilhaqi mawlana muhammad nasiri diin alhaq bilhaq wa ala alihi wa ashabi qadima da azim subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun wa salaamun wa salaamun rabbil aalamiin allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illa allah